di lancement bi nga xamante nii mooy joxoñ bis yi nga xam ni moom lañu jëm ci sunu kanam di 2022 23 ba 2040 lii la sëriñ Xaadim def ngir lancement bis yooyu nga xam ne moo nekk sunu kanam waaye lancement bi ku gis nii mu deme ak ñii nga xamante ni ñoo ñëwagun rek su yemoon nii rek baax na doy na ndax moom su wootee senegaal ñépp koy wiis ab juddoom mate na ko itteem ci doomu aadama yi matte na ko waaye bégal gi muy bégal jaam ñi matte na ko ñu ngi nuyu bu baax sunu yaay di san bàjjan bàjjan yëmmu Jóob mu ngi nii toog bu yaa nday toogoon ci baas bii moom laay jiitam ca ñoo bokkul lépp mooy waajuru sëriñ xaadim gay di meeriyam mii toog di sunu bàjjan di nit ku baax sunu waajur wa nga xam ne moo nekk Touba di soxna Ndey Jóob ñun ñépp nañ ko ñaanal sunu borom kattanal ko ca wéral ko ba gunge bii muy gunge sëriñ xaadim yàlla na dem ba ca kanam barke xaadimal Mustafa di fàttaliku sunu baay bu baax ba sëriñ maxtar Gueye yàggul rekk la ñépp daje ci Touba fekk ci sëriñ Xaadim mu ñibbi barsaq yàlla na ko sangam ba sëriñ Cheikh Ahmadou ngay defaat ma teeru ca bëggale ko Cheikh Moustapha al waaye kenn ku ne xam ne bis bii dañ ciy fàttaliku jàmbaar joo xamante ni kenn ku nekk xam na ni jëwriñ la woon ci liggéey bii di Mouhamadou Bilo Bamba su ma ko waxee ñépp xam nañ ko ak sëriñ Xaadim Gueye mu doonoon nit ku bëgg sëriñ Xaadim géey koo xam ni léppam guddi muy bëccëg ak bëggam bëggug sëriñ Xaadim géey du ko fekke saa bu sëriñ xaadim bëggee fekk biloo jàpp aw yoon day bàyyi yoon woowee dem doxi bëggu sëriñ xaadim njabootam gi yépp ñu ngi teew ca moom kenn ku ne xam ne ni ñun ay moroom lañu defoon ca mat nañu waajur sunu pàppa la ñu ngi koy ñaanal yàlla fa mu tëdd ca Touba su fooyeef ci kawam njaboot gi mu fi bàyyi sunu borom teg loxo ci seen kaw ba seen yéene yépp ñu àggale ko jërëjëf Diop waaw nan ma ko dalalal saayibul asraar nan ma ko dalalal saayibul asraar biloo mbooleem ko di murid rek war nga koo ñaanal ndax li tax sookoon nga mu bàyyi ko kenn ku nekk xam na dëkk ba mu doon ci aw melokaan biloo jaay am njureelam ñëw rek dëggumal sëriñ tubaa waaye buntam di sëriñ Mbàkke soxnaloo loo fa mu bokkoon yépp ku fa yaakaar sëriñ Touba nekku nekku fa waaye moom mu ne man jaayante na ma ak Serigne Touba ca dootuma deltu ginnaaw waaye kenn ku nekk xam na ni bisam ba ca Touba jaroon na rek jaayante ak Serigne Touba ca fii mu dëkk ci Liberté 5 ñépp nawloo nan ko ngir jëfam ak bëggam sëriñ Touba ak lam fa wëlbatiki ci ay ndaw ak i mag ngir ñu soppaat Seexul Xaddim biloo Bamba la génn sëriñ Touba yàlla na yàggal yàlla àggale yéenam ci doomam. ak soxnaam su baax nii soxna Poupée nit ku baax la nit ku bëggoon lu baax la baas bii su ko fekkee woon bi nu ko baasee biig mën na maa waat ni ci lay fanaan nan ko ñaanal mook sëriñ lamin Seck kenn ku nekk xamoon ko moom ci keppaaru sëriñ Xaadim Gueye ñoom ñépp sunu borom def nañu jiitu ji yal na leen yàlla yërëm ca xare leen àjjana jërëjëf Guèye ñoo ngi nuyu bu baax ak dalal sëriñ Modou Guèye di sëtub seex aadama Guèye ak seex ma baabu di rakk sëriñ Xaadim Guèye di kilifa ci jataay bii toog mu ngi nii ànd ak sëriñ Xaadim lépp moom it ñu ngi koy dalal waaye Daouda Sarr dafa mel ni mooy soog a egsi léegi nan ma ko dalalal rek jox leen place moom it kenn ku ne xam na ni bis bii maa ngi ña Sarr Sëriñ Daouda juuf nan ma ko dalalal mu toog yow gay murid yi dañoo am ci yow yéene murid yi ñoo am ci yow cofeel murid yi ñoo bëgg a ànd ak yow liggéeyal sëriñ Tuubaa ak soxna Jaara jàng yàgg na fi loolu kenn ku nekk di jàng jàng yàgg na fi lool jàngkat yi di tourné jàng yàgg na fi lool jàngkat yi di tukki waaye li la Seex mun Muntaxa wax yow rek la ko mas a wax cib jàngkat xaadim nga ni Mbàkke mu ne ko am nga xaas ci xasida yi waaye am nga xaas ci soxna jaara xaas nag maa ngi koy leeral murid yi ko xamul mu ngi mel ni ñu tëj ak kër bu tëj buntu kër ga caabi ko lawbe caabi yëpp réer nga ñëw taxaw ci bur buntu kër gi ni dajj leen buntu kër gi teg ne roñ leen di ci biir kër gi yóbbu leen loolu mooy xaas soxna jaara ki ko wax nag mooy sëñ Touba fii may wax ak yow ca du waxe bakkan ku dem ci youtube bi di nga gis lii may wax sëriñ xaadim sarak teew na di sëriñ Modou Gueye waaye ànd ak Baye Fallou sëriñ Moustapha Gueye yarwaay mën naa ko tudde noonu ndax moom njabootu Cheikh aadama amu ci xaj ak seen sëñ Pape ñu ngi muy toog ak bëggam sëriñ xaadim am na tàmbali waaye amutub yemukaay mu bàyyi koo tëngéej ñëw ànd ak une forte délégation sëriñ xaadim sa rak di jëwriñ ci liggéey bi nga xam ne mooy mafaatixul bisri wax naa ko liggéey bi yàgg naa dox waaye ni sëriñ Abdou Lahad soppee xarkanamu tuuba noonu la ablaat Lahad soppee xarkanamu ma faatixul bi sëriñ keroog bi ñu la jiitalee nga mat sëkk jëwriñ bala ngay def dara da nga jaayante lépp lu sëriñ xaarin di woote Abdou Lahad Njaay ci man lépp ma mafatihul bisir lenn sa wërsëg du ko fekke poroxaan kenn du la jiitu at mu jot danaan li daayira bi di teg naa ko teg bokkut ak sama sox sas wi nga xam ne dama koo sasoo ci soxna jaara muy at mu jot dinaa jënd aw nag loolu at mu jot mu def ko da koo saxal abdulaat ànd na ak sunu mag sëriñ Mara Ndiaye ak kan sëriñ Mbacke mbaay akkan ak sëriñ Seexuna Jaaxu di koo xam ne ni moom it ku yàgg ci soppe yi la waaye alaaji Maamun damay bëgg ñépp toog kii nuyoo noonu mooy sëriñ naa Njaay borom jaaro bi man nag jaaro bi keroog bala ko doomi sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma laajee ni la utal ma ci jaaro bi mu ñëw laa xam ne jaaro bi ay yëf a ngi ci man Serigne naa mooy nuyu ak Serigne Khadim Gueye mu ngi noonu di nit ku baax di taalibi Serigne Touba wax naa ko ni ko. da nga tarbiya yu xaside yi mën a jàng lool waaye sëriñ Touba di ko akub cëram mu toog fii ci parcelle unité 26 di dimbali jaam bi Serigne Cheikh Abdou Gaynde ma nag moo ne la indil ma jaaro bi loolu moom kenn nettalu ma ko maa fekke borom jaaro baa ngi nii kee moom ku ko soxla ci man ngay jaar ma won la borom jaaro bi fan la ne Serigne Khadim. sëriñ Mouhamed Mbay bëgg alxuraan jàng ko bind ci ay kaamil yu bari jébbal ko njabootu sëriñ Touba gi nekk fii ci ndakaaru taalibey sëriñ tubaay yi jox ko ay seeni ndaw seeni doom seenu njaboot mu ngi fii ci Nord Foire mu ngi nii toog ñëw na di nit ku baax bëgg la lool sopp la lool sëñ Mouhamed waaye sëriñ xaadim sa rakk ñëw na di nit ku baax taalibib sëriñ Touba koo xamante nii wax naa ko wax naa ko bërki dem nee naa ko yàqu derub Cees ba nga doonee ndaw jàng li nga war a jàng ba xàmmee da nga dugg àll bi nag dugg soow dugg gànnaar dugg fuuta dem dajale xam-xam yu baree baree baree bëri ñëwaat toog biir Thiès ñu naan ko mu njaay Ndiaye saayibul waa jaa ngi nii toog sëriñ xaarim ñii nga dajale ci sa baas bi ay nit ci qualité lañ yoo xamante nii démb ak barki démb ñuy yow rek lañu bëggoon lii mu def dafa rëy ci moom lool sëñ xaarim ne am lu toll lii jox ñu ci ab cër nee na lu ko ko gënal amut ci àdduna ndax nee na jàngkatu xasida yi da na fonk de ndax da cee jaar ne sëriñ xaadim nag dafa am ci moom beneen cër cër bu rëy ne da daan ñëw cees ne léeg-léegi su jógee dakaar ñëw ñu daje kër soxna na bu Diop ne xam naa ci dara bu wér ne ñu toog ci benn néeg maag sëñ xaadim géey rek ñaari waxtu dañ koy waxtaan ak sëñ xaadim nee waxtaan yi nii waxtaan ne jëmul ci lu dul conseil yu ma sëñ xaadim gay di jox ngir ma war caa jaar ne day wax ak man ci ay conseil yoo xam ni nee fii nga xam ne fii laa toll ca jàpp ni egsi wu ma fenn ne moom ñi kenn jiitul ko ci ndax nit boo bëggee dem da ngay déglu borom xel mu rafet ak borom barke ca ñaar yëpp daje na ci jëf nee bark bi xasida ko jox xel mu rafet mi yàllaa ko jagleel ne ay conseil am bokk na ci yi ko àggale fii mu egsi ne keroog ba mu yebalee ñu def délégation dem fekk la almadi ca mu waroon a ñëwal boppam ne kilifa gu mag di ko jàngaloo ca Touba teewul waat dafa woote waat téléphone ni jox leen ma sëñ leemu ma ne ko sëñ Xaadim boo woote woon rek ca yeble woo doy na sëkk ndax fi ma ko teg ne ñu ngi koy ñaanal bu baax di nuyu ñi mu àndal sëriñ Lamine Ndiaye xaadimal muslimina ak sëriñ Daawur Diagne nuurulaahi ne xaritam la ak sëriñ Fallu Jóob ak sëriñ Papis ne ñoom ñépp ànd ak moom ñee ñëw kër ga ànd ak moom ne du ñu jóg këram almadi ne ñooñu ñooñu doon ay wéttalam nee sëriñ xaadim nee na lii da koo xeeb ñaar fi ku junne daf ko barkeeloo ne xeeb ko lool nee su sañoon bis bi lépp moo koy def waaye nee na lii suñ ko defee nee dugalal ñu ko ci biir liggéeyu soxna jaara bi nee sëriñ xaadim ñaan dong la ni sàkku de nga defal ñu ko xeeb nañ ko lool xam nga ni bëggoo tur de wala nga bëggub cër barkeb sëriñ Touba sëriñ xaadim seen taalibe yi ñi ngi leen di nuyu yéen ñi fi teew ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaara di leen baalu àq te di ko sàkku ci yéen di ñaanal seex muntaqa basiru suñu borom yàggal ko fi lool ànd ak wér di ñaanal sëriñ xaadim géey suñu borom yàggal ko fi tam ànd ak wér lool ci barke seexul xaadim di jël sunu kàddu di ko jooyante ci sii nga xam ne nii mooy Cheikh Abdou Lahad Ndiaye Cheikh Abdou Lahad di jëmm joo xam ne nii képp koo xam ne nii xamu ko it dégg nga aw turam ci am jom am pëstéef dis gor di nit ku baax di ko nangoo liggéey di ko jub te bëgg sëriñ bi rek ak xasida yi te yàlla rek tax jëmm jooju lu toll ne bés bi ñu tuddee ko ko déglu jëmm jooju mani nanu toog tuuti ci déglu nag baal leen ma tuuti ñu déglu na ma ñëpp may déglu ngir jëmmi sëñ Tuubaa ku déglu rek bisub soxna jaara bi ñuy def 2022 yàlla na ko fekk ci barke Cheikhuna Ahmadul Khadim ñaan naa ko mu yëpp na ma ñëpp déglu bisimilah. waaw ñu wéyale kàddu gi ci jëmm ji nga xam ne ni tey jii dañ koo tunde bés bi muy Cheikh njaay mu jël kàddoom gi dara jaale ñu ko ñu fa yéenee jooyante ay kàddoom ci. bés bii nga xam ne nii mooy bésu soxna jaara bi te Seex Abdou Lahad képp koo xam ne nii xam na jëmmam jii xam ko ci ak maandu ak ak jub ak nangoo liggéey ak fonkab sëriñam ak bëgg soxna jaara ak bëgg sëriñ xaadim géey mii jëmm jooju bu leen neexoon tey jii bés bii kenn du ko ko tudde ndax ci la bokk ndax Seex Abdou Lahad Njaay képp ku di soppe nekk tey jii ci senegal ak bitim réew moom la ñu jiital ci kanamu soppe yépp soppe sëriñ xaadim ngay di mafaatul bisri si Abdoulaye Ndiaye moomee mooy njiit li tey jii ñu jëlaat bés bi dara jaale ko ko tudde ko bés bi kon lii wàccoo nañu ak moom waaye nag dañ koo séq ak as gor séq koog nit ku baax séq koog nit ku maandu ku teey te bëgg waa góor te bëgg ngóora lool ci li muy def kon Cheikh Abdoulaye tey jii bu agsee fii te yàlla jëmmam jii da cee am wàll te léppit ci kóolu teg sëriñ xaadim géey la ak soppe yi kon Cheikh Abdou Lahad ngàcca ngalaamaa yow def nga li nga war a def lépp ànd ak sa délégation man mii di wax ak yéen sëriñ Mara Ndiaye ànd ak sëriñ Mbàkke Mbaay ak sëriñ naa Jaaxo mu départ Touba tey ci suba ñëw yendu si fii kon Cheikh Abdou Lahad cofut bés bi ndax daray sëriñ xaadim la cofut tey jii bu fekkoon ne une semaine la ko sëriñ xaadim di defi tamit du jóg fenn fi lay toog ak moom ba bés bi jeex kon Cheikh Abdou li la war lépp def sa diggante ak sëriñ séq ko as gor soo xam ne nii nag nit ku maandu la di nit ku baax muy Serigne xaadim Gueye te képp koo xam ne ni xam na Serigne Khadim Gueye xam ko ci jub ak ak maandu ak bëgg lu baax ak bëgg ak mbokk ak am pastéef ci li muy def te Serigne Khadim coful leen ni kenn kon bu gootee lu mel nii lii fi daje tey jii nga xool leen ñu ñëpp di boromi personnalité kon Serigne xaadim la la war lépp def nga ko wax dëgg yàlla kon ñu ngi sant bu baax mbooloo mi di gërëm ñëpp di ñaan ñaanal Serigne Khadim Gueye mii suñu borom yàggal ko fi loolu tam ànd ak wér ndam la ci yoonu lislaam wi ndam la ci xasaayit yi ndam la ci suñu diggante ak moom kon bu meloon ne tey jii ñun ñii duñu am fu nu taxaw wala danañ am gàcce waaye ngàcca ngalaama Serigne Khadim Gueye Cheikh Abdoulaye Ndiaye li la war lépp def nga ko ci diggante ak Serigne Khadim def nga ko ci diggante ak soppe yi def nga ko ci diggante ak say dëkkandoo def ci diggante say mbokk def nga ko ci diggante ak jànkatu xasaayit ndax fu ku ku la ku ne rek ci jànkatu xasaayit yi am nga taraanga sa diggante ak ñoom te loolu leer na ñëpp ñii nga xam ne ni tey jii ñoo yor ay micro di taxaw képp koo xam ne ni xam na sa tur wi tamit defal nga ko taraanga kon ngàcca ngalaama yow ndax waa góor rek nga bëgg yàlla mi nga xam ne ne moom mooy fay te mën a fay yàlla na la fay guddal sa fan wéral say cër te yàggal na fi lool ndax loolu rek mooy yoonu murit mooy yoonu diine ji mooy yoonu lislaam tey sagal nga nu sagal nga koo xam ne nii moom nga xam ak koo àndal rek sagal nga ko kon jërëjëfati kon Cheikh Abdou Lahad moo jëloon lettre bii nga xam ne nii moom la jël doon ko jébbal ñi nga xam ne nii moom mooy ñi war a yore bés bii waaw mu di ci def ñaar fukki junni di ko dara jaale ñii nga xam ne ni tey ji di leen ko jox àddee tax wax ne xeeb na ko lool ndax xat-xat yi ñu toll ak fi jamono toll moom moo tax waaye tamit bëggoon na lu ëpp lii tamit ndax fii lu ñu fi def lu ne moom lañ ko war a defal kon Cheikh Abdou Lahad ngàcce ngalaamaa yow yàlla na la yàlla guddal sa fan wéral say cër ak ngi fi fekk ñëpp barki Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf xalifa la di nit ku baax lii ñu yor bu ko neexoon tey jii moom dum taxaw fii di wax moom mi mooy taxaw fii di wax moo ñu njëkk ci sunu xaadim sëñ xaadim di sunu xalifa ca dàq ñoo wax fopp deret ji ci moom la jiitu soog ñëw ci ñun waa bala may jox nag sëriñ Daawuda Juuf waa daayira Tuubaa Ndereb dañ fi yónnee seenu àddiya waaw moom lan ma bindal fii bind nañ ko fii daayira Touba Ndereb teel teel moom xaalis bi ba ma pare damay bañ mu lañ waa daayira Touba Ndereb dañu yónnee ci seen àddiya ci Touba jëwriñ sëriñ sëriñ Saaliwu Ndiir ak sëriñ maam Cebbu Ndiir ñooñu ñoo nekk ci kaw njiitul daayira bi la fi bokk ci bés bi sëñ Daawda jàpp na ne moom la fi ñëwal ndax nu mu deme ak sëñ xaadim kenn ku nekk ci waa Tuubaa Refane boox ñépp kenn ku ne xam na diggante xaadim ak sëñ Daawda jàpp na ko jàppin woo xam ne ñépp xam nañu ne sëñ xaadim ak sëñ daawda duñu ñaar kenn lañu kon bu wootee bis tey boole ci sëñ daawda duñu mën lu mooy am ci mbégte lool mbooleem ñi nga xam ne nii tey jii ñoo ànd ak sëñ daawda mooy waa Touba Refan njabootam waa kër sëriñ bi ñépp la àndal ngir am foo xamee ne nii fa la teg sëñ xaadim mii ci liggéey boo xam ne nii ànd na ko moom bépp liggéey boo xam ne nii sëñ sëñ sëñ xaadim mu ngi koy def fas na yéene ànd ak sëñ xaadim ci liggéey boobu ba mu amee ko ni mu ko bëggee ndax sëñ xaadim kat yëg na daaw da yëg goo xam ne mën nañoo wax commencement bi waaye mënuñoo wax fu mu yem waaye ñun ñi nga xam ne nii dañu ànd ak daawda itam duñu mën a ñàkk seere ci daawda li nga xam ne nii moom lañu ci xam ndax dañoo bokk ak moom mu nekk ci tund woo xam ne lépp loo xamee ne nii yëngu na fa muy lu lu jëm ci lislaam daaw da loxoom a nga ca képp koo xamee ne nii mbokkam nga di yëngu ci dara daaw da jàpp na ca kon bu daaw bu ñu tuddee daaw da bés du ñu man lu mooy ànd ak moom bés bi ba ni ni nga xam ne nii noonu la ko borom bés bi bëggee mu man ko ne amee kon ñu ngi ñaanal sëñ xaadim suñu borom yàggal ko te mu yàggal taxawaay bi te mu wér ñoo ngi lay ñaanal bu baax a baax gis nañu taxawaay yi nga xam ne nii moom nga taxaw Touba Refane boox bés bi nga xam ne ñu ngi ko fay def chaque année muy waajtaay yi nga xam ne nii moom lañuy ñuy waaj moom la ñuy def di ko dajale ngir jumaa ja nga xam ne nii foofa la suñ Touba julli woon ay taxawaayam ñu ngi ko cee gis at mu nekk kon suñu xaalim ñoo ngi lay ñaanal suñu borom yàggal say taxawaay te wéral say cër di sant bu baax a baax a baax soppee sëñ xaadim géey yi jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di sant bu baax a baax sëñ daaw da moo barkeeloo ñaar fukki junni yi ci addiyaay Seex Ibra ci liggéeyam sëñ xaadim bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk ci yéen yàlla na saa borom dolli jàmm jëwriñ gañ ci kanam tuuti di ngeen déggu kàddoom balaa sëriñ xaadim géey yëkkati kàddoom Mohamed Diallo mooy wax ci délégation maire jàmbaar ji egsi léegi rek lay dalal ndax moom bu doon dafa am ngërëmul waajuram rek doy na Cheikh Bara Ndiaye waaye ki fi nekkal Cheikhul Khadim di Cheikh Sidil Muxtaar moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gërëm na jëmm ji asalem ñaata yoon nga fa tànt Cheikh Bara koy tàntal mu ne Cheikh Sidil Muxtaar damay gërëm sëriñ Touba def gis yow boo deful woon sax nit ñaa ngi gis résultat dafa am moo tax aselem gii ndakaaru gii région de Cap-Vert ñépp xam nañ kan mooy Cheikh Bara Ndiaye ku jaaxle rek heure bu mu la fëgg nga ubbi porte yépp nga ubbeeku yàlla yàlla gudd sa fan Serigne Khadim boole ko ci invité bis yi tuddee ko mu ñëw def délégation Mohamed Diallo mi may jox na kàddu gi wax naa léegi jëf yi monsieur le ci bis bii ak taxawaay boom ci am jëwriñ ngañ mii la àndal dagg itteem yi mu am yépp ca kenn ku nekk xam na ni temps ci koo xamante ni dañ la jox dëkk bu toll ne Grand Yoff ni la yow rekk lañ ciy déglu nga ne naa fekk si sëriñ xaadim loolu nag sëriñ xaadim ngay bëggee na ko mu le maire lu ko neex la sëriñ Assane maa ngi lay nuyu bu baax ku bëgg sëriñ xaadim gi barki démb dafa dikki indiale parfum yu bari ni ñëpp laay jox parfum damay jox sëriñ bi addi jox leen pa addi monsieur le maire nag loolu mu def dikk baas bii mu ni maa koy def kenn ku nekk xam na ni bis bii ba mu taxawee min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alladi allama al insana ma lam yaalam summa salaatu wasalaamu ala seydina muhammad ibnu abdallah jërëjëfe borom tuuba jërëjëfe cheikh ahmadou bamba xaadim rasul jërëjëfe teeti Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu te muy nuyug lislaam mi nga xamante ne yiw bi du jeex te muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaye nuyoog jataay gi amoon nañu yéene ku ci nekk ñu fekk la fa nga toog jox la loxo waaye loxo bi dañu koy tënk ci ki sabab jataay bi di sëriñ xaadim géey di ko ñaanal yàlla tawféex waaye foofu lañuy ñuy dugaale di ñaanal sëñ muhammadu muntaxa yal na yàlla guddal fan ñaanal seex jëmb faal yal na yàlla guddal fan waaye ñaanal sunu buntu ci seexul xadiim di cheikh ahmadou kara mbàkke nooréyni yal na yàlla gëna a guddal fanam sëriñ xaadim ñu ngi lay ziyaar lottu nañ sax ci wax ci kàddu ki nu yónni ndax yéene bi mu amoon ci bés bi ànd kook yow yàlla dogal la muy dogal ci ñaari fan yi ndax ñépp xam nañ ne borom bi moom mooy faalun li ma yurid mooy def lu ko neex yàlla dogal am ku ko jege woon lool ci li muy yëngu muy politique yàlla jël bakkanam altine eh, ba ñu denc ko démb Tuuba daanaka fa la nu yenn mu ngi may wax sax jaale si ngeen fa yal na yàlla fay leen yiw tey mu xëy soxnaam borom bi def ki ñu ko tuddee di bàjjanam moom it yàlla def la soob ca moom tuubaatul fa la xëy dem waaye mu xamal ñu ne ma jàppoon ne bu nekkee ci xat-xat yooyu du am yittewu bés bi waaye fajar la ma woo ne ma fàttewoo bésu sëñ xaadim bi ma ne ko déedéet ma ne sëñ xaadim yow dangaa am sens ci monsieur le ci bés yu mel ni la ñuy wax nag du làmbatu dañ cee teg loxo ndax lépp luy diine ci mairie Grand Yoff ñun la borom bi dogal nag mu nekk suñu kaw ndodd donte ay tuutànk lañ waaye dañu koy sante rek annal fadla bi yadillaahi yuuti man yasa loolu alxuraan la loolu moo dal monsieur le ndax yàlla mooy fekk jëmm ju ko neex mu def ci moom daraja mooy fal ku ko neex doonte xale la waaye Sénégal dañoo am habitude nga gis xale yor ndombo tànk nga ne fii la juddoo sunu kanam ñoo ko fi yar kenn ku fi ne juddoo nga ci kanamu ni waaye yàlla mooy soob lu ko neex ci nit kooku ka ca bugg a noppalu nag am xol bu feex di dund aljana comme ni ma ko sama sëriñ di waxee si Ahmadou Kara daf ñuy faral di wax ne dee leen fexe di dund aljana te deewoole ñun ci loolu lañ nekk waaye man yitte bu mu jox bésu sëñ xaadim bi daf ma yéem ba léegi keroo dafa ma woon ne ma sëñ xaadim dafay war a ñëw ndax maa la waroon recevoir pour indi carte bi ma ne ko waaw Abdou Diaw wax na ma ko mu ne ma déedéet bàyyil man ma dem fa ma ne ko baax na mu dem ñëw jël téléphone woo ma ne ma dinaa la boole ki yor organisation wu bés bi muy sëñ xaadim seen lépp lu ci war a taxaw na ngeen ko taxawe ma ne ko waaw baax na loolu su ma juumul altine la àllarba bi ñuy jógee daaru salaam si yoon bi mu ne ma maa bésu sëñ xaadim bi fàttewoo ko ma ne ko déedéet suba laa am rendez-vous maa xaadim seen li waral ma ne li tax mu def ni sa bés daf ma yéem man maa koy faral di fàttali programme yi mais bii moom moo koy fàttali kon dey wone ne am na ci yow yéene am na ci yow cofe waaye li ko waral mooy dangaa nekk ci loo xamante ne tey ñu bari dañoo jàpp garaayof agression sàcc dorog boon yooyu ñoo fi am waaye lu baax a ngi fi waaye dafa fekk ne réew mi wone lu bon moo leen gën a yomb wone lu baax te innal xasanaatu yujzina sayiat fii am na lu ñu fi def le 23 juin bi passé muy niroog manifestation la la nga def fi sa bés bi du yow yàlla la ak ku tedd ki mooy innal xasanaatu yujzina sayiat boobu yàlla di wax luy rafet yi day fànq yu ñaaw yi kon xaadim yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla wéral sa cër ñu ngi ziar sëñ ngañ di sunu kilifa di ko bëgg sëriñ di ko bëgg monsieur le maire Pam Diop ñu xam ko yëg ko li tax ñu déplacé fi ñëw nuyu si ko bu doon moom la da koy def kon nag kooku te dañuy wax ne alxuraan day wax ne ndaw li représenté ka ko yónni daraja boobu lay yor te ñun dañuy xool ay tànkam rek ñàkkuñu ñu fayda nag duñu ñun duñu ànd ak n'importe qui ndax danoo jàngi daara kokki mokkal alxuraan am sunu bac dem Égypte jàngi ñëwaat ku ñuy àndal ci politique dañuy fekk sa jikko doy ñu monsieur le laay àndal mu ne ma heure julli jot na fu munti doon bu dee voyage la ñu wàcc julli maag moom man jikko jooj laa ko toppee ndax du ma xam ko manta ta'allama alxuraan allamahu ba pare di sibooru doomu aadama du ma ko def wa ma min daabati fil ard ila alallahi risquha man loolu laa gëm waaye nag ku ma àndal dama gis ci yow jikko politique nag day mel ni moom daf ko dab waaye moom moo falu ba léegi musta tarde xadara juma taalibe sëñ Babacar la caatam ci sëñ Babacar la ko tudde am na mu ngi daagu biir këram kon ku bëgg sëñ Babacar la dañoo ànd si oto mu ñu jàpp Lamp mu ne ma jëwrin xawma ma xasida yi lu muy wax waaye sëñ bi du moroomu kenn ku mun a bind la la muy wax ci xol lay jàpp ginnaaw loolu ñu ngi ànd ak sunu secrétaire municipal muy Ibra SM Ibra Dieng di waa Touba mu ngi ne toog fegook feggoog Modou Sale moom it di kuy jàppale monsieur le ak uh, Moustapha Dabo moom it mu nekk agent municipal moo njaay lépp luy photo moom moo ko yor waaye dañuy wax te yaqin lañ ci am am nañ yaqin ne bu ñu xëyee giseek moom daara ji dinañ ci def fukki tonu ciment ak lu topp ñun am nañ yaqin boobu bu wér kon dañ lay xamal ne ñun jël nañ engagement boobu ci turam ne dinañ ci def fukki tonu ciment ak moom amaana moom bu ñu waxee xërte mun na yokku lool ndax bi mu waxee mun ne ma ñoom baas bi ñu bëggoon baas daa tuuti maa leen ko yokku lool mun nañ koo dem ne ko fee jël nañ fa engagement fukki tonu ciment mu ne def leen ko 30 loolu jëfam la waaye lii ñun ñoo ko wax muy sunu engagement te nag alxuraan day wax yaa ayyuhal lazina aamanu lima taqulu maa laa tafalu ka burru maxtan indala an taqulu maa laa tafalu ngel képp kuy wax bu bëtu nit ñi tax ngay wax wax rek te yàlla tax kon sëñ xaadim suñu sañoon dañuy fanaana yow ci tànt bi waaye tey ñun ñooy ay tànkam ñoo koy demal fépp ndax nekku fi waaye tax ñu ngi sakkuwaat ñaan la ñuy wax rek